yu baree ci fànn yu baree bari waaye nañu gis ne la ko laytaay lépp ni ko sëriñ Mouhamed Lamine waxe léegi mooy manque d'organisation wala boog mal organisation wala ñàkk def planification bu baax bari na kuy jàpp ne adduna bi maanaam problème économique moo ko gàllankoor wala problème njàng dëgg la ci la bokk waaye lii ndey jafe-jafe bi dëgg-dëgg mooy système boo xam ne nii melut dama war a mel wala planification boo xam ne nii dese naa jaar ci yoon loolu booy xool ci àddina bi da nga gis ku nekk tey alal ji ci àddina bi ku nekk xam ne ni dafa yokk ci façon bu baree bari waaye ñàkk gi tam day mel ni daa gën a yokk ci àddina bi kon niñ ko war a planifier alal ji niñ ko war a séddalee séddalin wu jaarut yoon la dañ ko war a organiser moom tegu ci yoon moo jaarut yoon moo tax alal ji yokk ba noppi ñàkk gi yokk ñu àndandoo te warutu ñu demee noonu boo xoolee njàng mi tey gën naa tasaaroo li ñuy tuddee ay école wala ay daara wala ay barabi jàngukaay yaatu na lool gën naa yaatu ci àddina bi waaye booy xool day mel ne ñàkk xam tey la gën a bari ci àddina bi te muy ñàkk xam goo xam ne ni sax moo gën a danger fuuf ñàkk xam gañ xamoon bu njëkk mooy ñàkk xam goo xam da jàpp ne xam nga te xamoo. kon dafay mel ne barabu jàngukaay yi moom it dañ ko waroon a nose war koo planifier noonu ba mu mën a jur njàng moo xam ne dana dàqu réer des na moom itam booy xool day mel ni nit ñi gën nañoo yeew bu baax ku nekk sa conscience gën naa yëkkati jëm kaw waaye ànd ak loolu lépp day mel yàqu-yàqu yi tey la gën a bari ci diggante mbooloo la loolaat kon la muy jur mooy ne kon manque d'organisation walla boog mal organisation wala boog ñàkk a nosu moo fay daal di feeñ kon loolu lépp boo koy xool ci àdduna bi day wane kon ñàkk nosu wala nosin wu jaar yoon mooy nday jafe-jafe yi àddina bi dund loolu nag kenn mucc ci ba ci suñu tarixatul muridiyya bi mooy njàng li mooy root yoon yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa rëddoon mucc ci loolu booy xool tey yoon yi li ci nekk ci mbooloo yokk na ay yoon yoon fulu na ay yoon yoon man-man yi nekk ci suñuy loxo furu na ay yooni yoon waaye nag boo ko doon comparé jamono ji ñu dund ak jamono ji yoon wi nekk yoon wi dëgg-dëgg da ngay gis ne yitte ji wala ba pësteef yi mel na ne am na lu ji rëq-rëq bu ci nekk dana feeñ ci projet yi nga xamoon moom la ñu taxawal gëj nañoo dégg projet bu mag bu rëy ba tax ñu wax projet bu rëy mooy boo xam ne nii buñ koy song dañ daan lii nit waru koo mën a defal boppam ñu song ko ba noppi daan ko loola gëj na lu mel ne tey ab raay ci misaal ñu ne raay état sax léeg-léeg bu koy defar da ci am jafe-jafe am mbooloo xëy song ko ne danañ defar raay jumaay tubaab bañ koy song ci ay jamonoom booba ñëpp jàppoon nañ ne loolu ay caaxaan la wata mën nekk projet yu rëy yooyu nag yitte ju mag jooju ko daan doxal ak nosu gañ nosu woon ci jamono yooyu mën naa am moo tax léegi ñi ngi yëkkati ay projet waaye yu tolloo nag gëj nañ koo dégg danañ joxe misaal rek ci projet yu rëy yi nga xam waroon nañoo mën a nosu ba mu ko taxawal tey suñu dëkk bii di Touba ñu bari ñu ngi waxtaanee war nañ koo defar assainissement bu baax war naa am égout yoo xam mooy yóbbu ndox yi mooy ak canalisation bu normal bu jaar yoon ku nekk di taxaw ne diwa ko war a def wala côté wala état moo ko defar yu mel noonu bu doon bañuy nosu dëgg dëgg song ko te buñ ko songee dañ koy daan ku nekk ne ca lañ woon raay bi daan ko songu jumaa ji jamono yooyu daan kon projet yu rëy yooyu dafay mel ne dafa gën dellu gannaaw te kon ci nos bi ci lay feeñ li gën a métti ci mbir mi nag mooy jamono ji boo waxee dañ naan la am murit moom bokk nañ ko liñ ci xàmmee mooy nit ku amul organisation dañ naan la murit du am programme murit du am nos loolu nag fés gum fés ba nit ñi sax di ko jéem a dund day dem ba feeñ ci nit ñi lañ ci suñu biir nosu gi day des lool ñenn ñi sax dañuy dem ba di ko feeñal ci seen col bu ñuy sol day ëpp bu ñuy wax day ëpp bu ñuy dox day waxuma day ëpp rajax rajax day ëpp mel ne ñàkk a nosu mooy màndargam murit sëriñ bi wax na ko léegi ci ubbite gi dana feeñ suñu jotaay waxtu wi nga xam ne nii sëñ bi jàngaloon lañu ne waxtu mooy li gën a cher ci doomu aadama fexeel ba boo koy dépensé na nga xool la gën a cher ci yow nga def ko ci day mel ne waxtu wooyu dañoo fàtte xiimaam dañoo fàtte valeuram ci la ko sëñ bi jàngale woon loolu lépp day dellu si ci déggin woowu nga xam ne déggin yu la ñu déggee ko njàngaleem sëñ bi radiyallahu anhu day benn ni jotaay bi ni ko sëñ bi waxee léegi danañ sant bu baax ñi ko xalaat ñi xalaat ba tànn thème bu mel noonu te yaakaar nañu li jiblu mooy fexe ba am génération boo xam ne nii danañ dellusiwaat jàppat seen conscience bu baax xamaat seen cëslaay ci wàllu aada ak cosaan waaye xam li jamono laaj ñu mën koo dëppale loola nag mënuñ koo am lu dul dañuy def ay jotaay yoo xam dañ cay waxtaane mbir yi ñu war a waxtaane waaye nag buñ koy waxtaane ñu génn ca gépp farfarloo wala féete te xool lañ jàpp ne moo cay lu wér ñu joxe ko te yàlla doomu tax defe naa ne loolu mooy man tax mbir yi mën a sopp ci façon boo xam ne nii dana gën a jëm ci kanam baatub ni ko sëñ bi waxee léegi baat la moo xam ne mën nañ cee jële lu baree bari sëñ bi ci fànn yi baree bari yoo xam ne nii dañ ci ñëw ci kanam muy baat boo xam ne nii tasaaroo na lool ñu bari di ko jëfandikoo ba tey sax bu ñu nee diw ku organisé la diw ku nosu la diw ku teg mbiram ci yoon la day mel ne loola aw tagg la waaye bu ñu nee diw de moom mbiram daa organisé wu dara wala mbiram daa nosuwul dara day mel ne loola ab ab gàkk gàkk lay doon ci doxalinu ko sëñ bi wax na ko léegi moo tax nosu ci la suñu borom bind lépp àddina bi sax di ko yàlla bind da koo def ci système boo xam ne nii bu leer naññ la boo xoolee ni ko sëñ bi doon waxee léegi biddiw yi maanaam planète yi ak ci àddina bi yëpp ni ñuy doxe nga xool dund ak faatu bu fekkoon nit ñi dañuy dund rek te faatu amul wala bu fekkoon dañuy faatu rek te dund amul naka la addina biy doxe loolu yëpp sunu borom nos ko ci nosin boo xam ne nii ñii dañ ñëw ñii di dem addina bi am équilibre boo ko defee planète biddiw yi dañuy fekk biddiw yi di suux ak yu mel noonu te lenn lépp mu teg ko ci système bu leer kon sunu borom moo ñu jëngañ moo ñu jëkk a jàngal nosu dañu ñu war koo jàngataat bu baax moo tax àddina foo dem tey dañuy wax système éducatif système ci njàngale di wax système ci politique boo xam dañ koy nos di wax système économique mooy économie boo xam dañ koo nos di wax système social mooy vie social boo xam dañ koo nos kon day mel ni àddina bi mi ngi dox ci ay système moo tax li nga yor lu mu rëy rëy ak lu mu am am valeur bu fekkente ne nosoo ko jaarale ko ci yoon def ko système bu leer nañ dana jafe lool nga jëflanteeg keneen ki nga xam ne ni moom daa nos ay mbiram jaarale ko ci yoon te loolu defe naa ne lu am solo kon nos mooy nooy doxale mbooloo wala organisation moo xam ci wàllu diine lay yëngu ci wàllu jàng ak jàngale lay yëngu ci wàllu liggéey commerce wala ci wàllu politique ba ci sax tàggat yaram lu ci man di doon bu dee mbooloo dañuy nos dox yu ngir lépp mën a jaar yoon kon buñ nee nos. mooy mbooloo moo xam dañoo am ay relation officielle dañoo officialiser seen relation te mooy ku nekk ci biir mbooloo mi dañ laa wutal la ngay dox nga xam ne lii nga war a dox nga di ko dox bu ko defee ñu ñëpp ñu àndandoo jëm ci ay jubluwaay yoo xam ne ni dañ ko fas yéene loolu mooy tax mën a moo tax bu ñu nos kon mooy ni ñuy mën a fexee ba activités yi ñu war a doxal yëpp ngir mën a àgg fañ jëm nun koy toftalee ba wéer ko ci ay jëm yoo xam ne nii ñoo koy doxal lu mel ne tey ñu ne la administration boo xam ne dañ ko war a taxawal ku nekk ñu ne lii yaa koy taxawe ba mbir mi jëm fa mën a jëm boo delloo ci cosaan njàngale mag ñi dañ ko fay gis boo delloo ci jamono yéen salaa maanaam niñ defoon structure administrative bi moo doon yeneen tëb mooy ne ca kaw saxaaba yi topp ci moom boroom xam-xam yi topp ca bu ko defee amatu naas wala boog nit ñëpp doon daa topp boo demoon tey ci barabu jàngukaay moo xam école la wala yooyu da nga fay fekk directeur fekk fa ko topp ci moom ak ñam seqal administration ba fekk fa beneen kuréel bu ñu ci jàngalekat ya fekk fa kuréel bu ñu tuddee élève bu ko defee ñeneen ñi a mën a ñëw yëf ya mën a jaar ci yoon tey boo ñëwee ci yoonu murit da ngay xool gisub sëñ sëñ bi gis ay jëwriñ gis taalibe yi seen gannaaw ñu nos ko mbir mi mën a dox waaye nag kenn mënta xalaat mbooloo moo xam ne nii ñëpp ay def lépp moo mbooloo mënta dox mbooloo mu mati doon dañuy séddale mission yi rôle yi ñu war a taxawee dañ koy séddale seen biir bu ko defee ku nekk am looy dox daayira bi nga xam ñoo taxawal lii tey bu fekkante ñoom ñëpp ñooy defandoo lépp lii dox dañ naan ñii ñoo yore baas ba ñoo yore waxtaan wi ñii ñoo yore togg yi ñoo yore leneen ak leneen ku nekk ñu jox la nga war a def bu ko defee mu leer nañ loolu defe naa ne buñ ko fàttalikoon bu baax ci suñu biir milieu bi nga xam moom la ñuy dund ci biir tarixatul muridiyya bari na yuñ ciy gis yoo xam ne nii mën naa soppi ku baax a baax ndax léeg-léeg nga teg jataay boo xam ne nii jataay murid lay doon waaye doo xam kuy def lenn ñëpp ay lépp ñëpp ay waaxoondoo ñëpp ay yëngutoondoo ba mujj maanaam dal buñ defee la def sax léeg-léeg dañ koy xaw a ñàkk ci yenn ci jataay kon nos mooy li ñuy coordonné suñuy effort suñuy man-man suñuy kàttan ba àgg fañ bëgg àgg loolu mooy nosu te benn juyoo lu ci am benn rëq-rëq du ci am bu ñu ko bëggoon a tënk loolu rek léegi loolu mooy doon nos ci gën jaar tënk ci kàddu kon nag kenn mënta weddi ne nos kon lu am solo la ci projet yi mën a réussir maanaam projet bu ñu mën ci taxawal ci àdduna ak nosu mooy tax ñu mën a wéyal projet boobu mën a ak fi ñu ci bëgg a kon dana feeñ ci séddale gi ñuy séddale liggéey waxoon naa ko léegi ku nekk ñu ne la lii. yow yaa koy def loolu yàlla moo ñu ko njëkk a jàngal suñu borom dafa am ay malaayika malaayika yi ngay gis bu nekk dafa am fonction boo xam ne ni moom la ko yàlla féetale ne ko bii yaa koy def kee moom lañ féetale taw bi kee moom lañ féetale séddale wërsëg yi kee moom lañ féetale moom la ñu yónni ci yonente yi moom la ñuy féetale wàllu jël ruu yi kee moom la ñu féetale tukkil àddina bi ku ci nekk am nga mission boo xam ne ni moom la suñu borom jox nga war koo def te bu jox ko jotee da ko def loolu ñun liñ ci war a njëkk a mooy kon liñ ci war a njëkk a jànge mooy war nañoo fexe ba mbooloo mi ku nekk ñu ne la lii yaa koy def te bu jotee danga ko def loolu bu ñu ko defoon mbir mi mën naa dox ci lu gaaw te benn coono du am ci biir nosu moo ñuy may ñu def li ñuy wax feuille de route feuille route mooy mbooloo mu nekk bu ñu sosoo ba nopp dañ naan fële lañ bëgg a dem waaye nag yoon wii la jaar ba àgg làmbatu ci àdduna bi léegi kenn nangootu ko booy dox danga naan man jumaa ji laa bëgg a dem te yoon bii fa laay jaar ba dem ci jumaa loolu mënut a ñàkk waaye nag làmbatu tañaxu loolu moom àdduna bi nangootu moo tax mbooloo mu ñuy sos mu nekk bu ñu bëggee ëllëg mu am avenir dañuy wax li ñu def li ñuy wax feuille de te mooy bind ne mbooloo mi fii la jëm te jéego yii ak yii lañuy def ba àgg foofa bu ko neexee nag ñëpp daal dox jëm foofu nosu moo ñuy may nu ñuy mën a fexee ba décision yi ñuy jël wala boog xalaat yi ñuy jël mu war a jóge ci kaw di wàcc mën a jóge ci kaw di wàcc fu mu war a àgg mu àgg moo ñuy mayit xalaat yi jóge ci suuf te war a dem ci kaw di xelal ña ci kaw mu war a jaar fu mu war a jaar ba mën a àgg ci kaw te dara du ci yàqu loolu defe naa ne nosu moo ñu koy mën a may buñ ko tënkee foofu kon nos dañu gisee lu mënta ñàkk ci dundu doomu aadama ñu gis nag ne ci nosu ci la addina bi rawantee état yëpp ñu ngi rawantee ci nosu mbooloo yëpp ñu ngi rawantee ci nos seen mbooloo ba ci nit ñi sax ñu ngi leen di xàmmee ci ku nekk na nga nose say mbir boo bëggoon a xool loolu rek xoolal tey kenn ngi nii sa wet koo xam ne nii daa yor lu bari lool man lu bari lool waaye mënta réaliser dara ndax nosul ay mbiram nga gis ci wet ki koo xam ne nii lu tuuti la yor man manam bëriwut ba noppi muy réaliser loo xam ne nii dafa jaaxal ñëpp loolu ak nos moo ko may boo demee ci état yi nga gis réew moo xam ne nii amul benn matière première lu mel ne Japon ba noppi nos ba mën a dimbale réew moo xam ne nii ñu ngi tëdd ci koom mu dul jeex ba noppi di nelaw ndax ñàkk a nos tey réew Afrique yi nga gis nii réew moo ci dem tey liñ yor ci ay matière première ci suuf si suñu suuf si tëdd ci taxaw ci ba noppi dund gis réew moo xam ne ni amu ca dara waaye nosu rek moo tax ñu ñëw man ñuy jàppale tey ku la waxoon ne leen Corée du Sud bi ngay gis mook Sénégal bi ñuy amee indépendance ñoo tolloo woon ci lépp nattukaay yi ñu natt yëpp ñoo ci tolloo woon waaye xoolal tey pâte dentifrice bi ngay borosoo sax Corée yooyu ñoo koy defar ñëw jaay la ko yow defaroon ñun def ñu doxaguñ benn jéego loola ñàkk nosu moo ñu ko teg ñoom ñu nosu dox kon nosu mënta ñàkk ci mbir mënta ñàkk ci mbooloo mënta ñàkk ci dund moo tax suñ Mouhamad li ñëw na ci léegi lislaam bu mu ne waxee diine la diine la joo xam la ko sos dëgg-dëgg mooy nosu ak nos mbir yi bépp jullit boo xam ne nii nosoo sa mbir di dox ci tañaxu doo nekkul jullit ba nga xam ne nii moom la l'islam di royloo jullit ñu war ko roy boobu jullit kenn waru ko roy waaye l'islam dafa bàyyiwu dara dundu doomu adama gépp daf ko planifié ci planification bu leer nañ ci misaal mu ne la yaa ngi nii taxaw waaye am nga ñetti mbir yoo xam ne nii na nga ko nose sa mbir sa jëmmi bopp dafa am ci yow ak bu ko sàggane say mbokk dañoo am ci yow ak bu ko sàggane sunu boroom dafa am ci yow ak bu ko sàggane kon nag fexeel ba ku nekk nga jox ko cër ba mu war a am loolu la muy tekki mooy ne yàlla néewul kenn demal nga def nekku ab labbe ci misaal ci tënk misaal maanaam nga bàyyi sa lépp ne damaa féete ak yàlla rek jaamu yàlla rek laay def loolu yàlla sëntu kenn waxul tam nga dem rek nekk ci nit ñi jox sa cër lépp nga jox ko nit ñi fàtte sa bopp kon lu ci nekk dangaa war a nos sa dund ba nga xam ne nii li la war sa digg sa bopp danga ko def waaye li la war sa digg ak nit ñi danga ko def li sa digg suñu borom nga def ko loolu nos moo la koy may sa temps bii la yàlla jox muy waxtu wi dana la séddale ko ñetti wax ñetti xaaj jël ci benn boo xam ne nii bu jotee da koy jagleel yàlla di ko ca jaamu ngir ëllëg jël ci benn boo xam ne nii bu liggéey jotee da ngay dem sonn ngir nga am teraanga joo mën a tere ndax mooy tax sa àddina mën a tere na ci jël pàcc boo xam ne nii nag da nga koy tàllu di noppalu nga gis ne kon fàttewu sax noppalu ndax nit tam noppalu mooy tax nga mën a yeesalaat sa yitte gën a mën a doxaat doxin bu am solo. mu ne la sa alal ji nga yor bu ko pasar pasaree na nga ko organiser nos ko nee na nga def ko ñetti xaaj na ci jël boo xam ne nii ci sa bopp nga koy delloo fexeel ba yàlla alal jox na la alal fexeel ba bu la kenn gis di la yërëm na ci defar sa bopp ba ku la gis xam ne yàlla jox na la xéewal beneen bi na ko jël def ko ci nit ñi di def lu baax di leen ci dimbale waaye nag na nga ci jël benn pàcc boo xam ne nga koy denc ngir ëllëg. su la jafe-jafe dabee nga mën ko caa fajtal loolu nga gis ne kon bàyyiwul benn fànn te waxu ci jullit bi fan ci war a teg sa tànk kon kay ku nësut say mbir yaa nësut say mbir waaye bul jéem a laytoo lislaam bul jéem a laytoo keneen Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bu ñëwee ci moom dañuy gis ne gannaaw moom bi mu ñëwee dafa xam ne damaa ñëw ngir yeesal lislaam teg ko ci sunna njàngale bi sallallahu alayhi wa sallam loolu doo ngay liggéeyam kon mënta am doxin wu wuuteeg wi lislaam doon dox kon ni lislaam nose mbir yi sëriñ benn njàngale bi mu indi noonu la nose mbir yi ci gën jaarale ci anam buñ ko xoolee moom ci doxam bépp dox la bu planifié nos ko nosin woo xam ne day tegtale ne ku xam xamin wu xóot àddina bii la waaye tam ku xam xamin wu xóot li jamono laaj ngir ñu defar ko ci la mu daal di teg plan bu leer nañ boo xam da ko teg ngir la ko taxoon a jóg mu mën koo def te mooy defaraat askan jooyanti askan ak beesal diine muy loo xam ne nii sëñ bi ba mu koy xalaat di ko doxale noonu li ñuy wax sociologie mooy ñi nga xam ne ñoom ci wàllum sociologie léegi dem nañ ba gis ne ñeenti tànk yooyu mënta ñàkk ci mbir kon sëñ bi li mu njëkk a tàmbali mooy fexe ba xam jafe-jafe bii ñuy wax ñun lan la ndax it mënoo saafara mbir te xamoo jafe-jafe bi lu mu doon maanaam nga fixé ne lii mooy problème bi dëgg-dëgg ci laa war a liggéey loolu lu jafe la ñu bari dañu defe yomb la waaye jafe la loolu nag muy jëw yi moo tax ku nekk sa jëw yi rek nga daan xam ku nekk sa jëw yi rek ngay xam maanaam am na ñoo xam sax ay murit biir lañu woon waaye mën naa am sax ñoo gis Sëñ Tuubaa wala boog lañ ko gis bëriwul waaye nag àgg na ci murit foo xam ne nii ñëpp xam nañ ko te seen jëw ci la yemoon kon jëwriñ dafay lu am solo ci ponk bu am solo ci yoonu murit ñu war ko delloo siwaat ci misaal mu gàtt sëñ bi ba muy tabax jumaay Tuubaa ay nit la woo maam Thierno sëñ Mbàkke Buso ak ñeneen ak ñeneen man la leen woo ne leen damaa bëgg tabax jumaa ci Tuubaa deful communiqué woowul kenn kenn ñooñu la ko wax ñooñu dem xool ñoom naka la ñuy jokkoo ak seen mbooloo ba tabax mën a taxaw loolu am solo waaye léegi xoolal tey boo demoon tey kër xalifa général des mourides maanaam foo teg sa tànk ba nuyoo sax doo ko am waxuma laa nga toog ko di wax soxla tey xale yeeg jigéen ñi maanaam ku fa amul soxla ku soxla ñëpp ku ñëw ne danaa gis sëñ lu tax yow mënoo yem ci sa jëwriñ te loolu sa jëwriñ yow moom fa même koy jox addiye da ngay dem jox sa jëwriñ sa jëwriñ jàngale ci sëñ bi loolu mooy loolu sëñ bi noonu la nosewoon yoon bi dañu war cee si bàyyi ci bu baax a baax nga gisit ne jamono ji ñu toll nii ram xam xàmmeetuñ kii toll ci jàng ak kii toll ci tarqiya ñu war laa yéegal njàng mi ci bopp mi joxeetul lam daan joxe tarqiya bi wala tarbiya bi ci bopp mi joxeetul lam daan joxe léeg-léeg dana jafe lool nga gis ñaari nit ci mbedd mi kenn ki nga ne man nga mën a taxawaat ne kii ci daari tarbiya la nekk kii nekkul ci daari tarbiya daanaka doo leen xàmmee kon léegi day mel ni kon daara tarbiya fonction bañ ko joxoon moom doxatul bu mel noonu léeg-léeg sax nit koo xam ne day jël doom yóbbu ko ci daara tarbiya bu doom ji ñibbisee ci kër gi moom day dem ba gëm ne moom ñi ma yaraloon sama bopp ci kër gi sax da booy xool ñoo gën a tegu yoon ñi nga xam ñoo jógee daara tarbiya kon tam loolu tam ci système bi li war a xoolaat ci la bokk nga gis seetam tam sëñ bi taxawaay bi mu joxoon boroom xam yi léegi dañ leen a wàccuwaay bi leen sëñ bi joxoon nga xam ne ni ñoom la daan diisoo ci lu bëree loolaat bokk na ci li manqué ci no ci sëñ bi ñu nosal bi sëñ bi a xay na dëgg te mooy alal adduna ji dafay mel ne léegi borom alal jooju mooy ëpp wàccuwaay ci mbir mi ki nga xam ne nii moom alalam mooy xam-xam te mbir mi demutoon noonu loolu lam jur léegi mooy dangay ngay nekk borom xam-xam ñëw ci kër. ñu gannaawal la lool mën naa am keneen ku fa ñëw koo xam ne nii sax ci mpodong mu lay yëngutu ñu jox ko wàccuwaay boo xam ne nii yow léeg-léeg sax boo amut kii lool lool sa bopp da ngay am looy xalaat ak sa bopp te sëñ bi noonu day doo doonoon sëñ bi ni mu yoroon ñëpp fexe na ba kenn daw ci xeet sa morom maanaam kenn daw ci gis sa morom gis façon gisin boo xam waroo ko gisee noonu tey boo xoolee Cheikh Ibrahima Fall sëñ Mbàkke Bousso sëñ Daam Abdourahmane ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñoo bokkoon nag ci keppaaru sëñ bi ku nekk di dox sa mission sa rôle te kenn du ci xool bëtub xeebeel sa morom donte seen rôle wuti woon na ci kër sëñ bi na ci li nga xam ne nii sëñ bi jàngale na ko kuy nos goo xam ne nii waris na caa sëñ bi ci jamonoom nosoon na ba kàddu gi nekk benn kàddu gi genn lay doon ci sëñ bi lay jógee wàcc ñëw ci jëw yi dem ci taalibe yi léegi nag ku nekk yaa ngi def sa déclaration bopp loolu am lu jur ci suñu nekkin mooy ka nga xam ne léegi moom rolam weesu wutoon ñu jox ko ndigal mu jëfe léegi day jël déclaration ne nañ def nangam la ñu juróon mooy tey respect bi yoon wi amoon raglu gi amoon nga xam ne kenn mës ta ñemee tudd sëñ bi te maanaam boole woo ko respect bi mu laaj dëgg-dëgg kenn li ñu léegi loolu maanaam kàddu yu bari yi tax na léegi da gis benn waay boo xam ne tekkiwul lu am solo sax mooy jël lu doy waar lool teg ko ci kaw kilifa goo xam ne nii buñ jox cër la ci yoon yooyu yëpp nag kon manque organisation bi daf ciy feeñ buñ ko bëggee tënk sëñ Mouhamadou Lamine kon yooyu benn la ci sëñ bi ni mu nosaloon yoon wi ak ñun bu fekkente ne yoon mooy wàcc nañ ko lim ñu mën a jural xëy na mën naa gën a yaatu kon ñàkk na su moom ku nekk xam na ne lu doy waar waaye mal organisation moo gën a garaaw ñàkk nos maanaam ñàkk nos li muy doy doy waar ñàkk organise li muy doy doy waar mooy nga organiser organisation bu jaarul yoon ndax ki nosuwut moom boo ko ne nosuwoo day xam nosuwut waaye ki jàpp ne organisé la mu organisé jaarul yoon boo ko ne woo da lay mere ndax day jàpp ne da koy xel te fekk na moom daa daa mal organisé kon kooku moo gën a garaaw kon bu njëkk bi moo gën a yomb a tal ci bu ñaareel Euh, loolu mooy li nga xam ne danga ko doon ci kàddu ci gàtt ci tënk bu bu gàtt lool kon daal ci yoonu murit sëñ bi nos na ko noonu jàngale gis ko yaakaar naa ne buñ ci dellu see jàngataat ko benn par benn ci lu gën a détaillé danañ gis ne mën nañ cee jariñ ci suñu dundin te jamono ji laaj na ko lool lool lool ci jamono jiñ toll ndax yaakaar naa ne ñun li ñu manqué du boroomi xam-xam du boroomi alal du boroomi kàttan yi nangoo joxe seen kàttan du boroomi xel waaye li ñu manqué dëgg-dëgg mooy li ñuy fexee ba nos loolu ñëpp mën koo jariñoo noo ngi sant ñëpp di gërëm dax baax daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu